asalaamualeykum wa rahmatullahi taxala wa barakaatuhu asalaamualeykum bokki jullit yépp asalaamualeykum bokk taalib bi yépp ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jéggulu bu baax di leen siyaare bu baax ci àq yi nga xam ne dox na sunu diggante rawatina diggante jullit ak moroomam ñu fas yéene dellu siyaat nag ci ndimbalal suñu borom tabaaraka wa taala fas yéene leen a andil ay fàttale ndax fàttaliku tey fàttale dana jëriñ doomu aadama bi muy wa sakkir fa inna sikra tanfaxul muminin tey nag mu am événement bu am solo muy événement bu mag boo xam ne fàttaliku ko te di ko fàttalee te teg ko ci lu leer dana amal nit ki njëriñ mu di sunu dëkk bii di Touba mu ni nga xam ne ni la ko Seexul Xadim gore ak ni mu ko doon wëree ba suñu boroom jox ko tegtal ba mu agsi fekkoon fi ay jafe-jafe fekkoon fi lu dul ay rabi àll ñu dëkk fi waaye mu ñëw rek daal di koy jànkonteeg cooro yi tegtalu yëpp ci allasiina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa husnul maab ba suñu borom dogal gannaaw ba mu sañcee Daaru mu ñëw di wër si dëkk bii di tuuba ba agsi fee nga xam ne moom la ñuy wax sajaratu sahaada muy fii nga xam ne tey fi lañ ko denc muy génn bépp ku fi nekkoon foofu la ko fukki nit yi ak juróom fekk gannaaw ba ñu jógee ci Daaru ñëw doon ko wër ci àll bu lëndëm këriis boole kook ay jafe-jafe ak ay rabi àll ak lépp loo xam ne luy lore lu nekkoon ci àll boobu ba suñu borom dogal ñu gis benn tukkulóor bu ñuy wax buubu jàpp mu dëkkoon Mbàkke Bawol gën a nga xam ne fan Seexul Xadim gane jamono mu doon ab rëbb bu daan rëbb ci déegu mbal bii nga xam ne moo nekk ci Tuubaa ci ay jamono euh, mu daje fukki nit yaak juróom fukki nit yaak juróom laaj ko ndax gis nga fi jëmm ji ñu wax Sëriñ Tuubaa mu ne leen am na lu seen fii ci àll bi luy nuroo nit bi may rëbbu ñu ne ko nan dem nga war na ko ban dikkee nu fekk Seexul Xadim fii nga xam ne fi la topp waaye Seexul Xadim nag dafa amoon ak bëgg ci dëkk bi muy da koo bëggoon ngir jaamu yàlla jaamu yàlla rek moo taxoon mu ñëw ci dëkk bi bëggoon fee jëmmale ki nga xam ne mooy ab sanga muy sallallahu alayhi wa sallam euh, jumaa joo xam ne jumaa yi jaamukaayu yàlla lay doon muy jumaa ju mel ne jii nga xam ne tey jii moom la ñuy màndargaal jumaa yi Seexul xam ne mooy jumaa ji nga xam ne Seexul Xadim waxoon na ne moom la ñuy yëkkati bu ëllëgee eh, déjjati ko noonu yóbbu ko àjjana te dara ci sikk jumaa jooju mooy bëggam gi nga xam ne moom la gënoon a bëgg bokkoon ci dénkaan yi nga xam ne dénkoon na ko Cheikh Mamadou Moussa waaye nag dañoo gis ne Cheikh Mamadou Moussa lañ ko fi wóotoo ba mate li nga xam ne moom la ko dénkoon muy jëmmi boppam yi nga xam ne moom la waxoon ne ko nag ma yóbbu Touba tabu xaddam gannaaw ba nga xamee ne tubaab yi gisoon nañ ne yaram waa ngi tàmbali soppiku màgg ngi dugg si kon ñu jàpp ne bis dana ñëw lii dikkal doomu aadama dana ko mos a dikkal muy dana mas a faatu su faatoo yoonu murid day tas loole la Seexul Xadim teel a gis nag yëg ko bëgg fee bàyyi loo xam ne bu ëllëgee dara du ko mënal dara su ko defee dana laatu ci fànn yépp loolee nag mu tàmbalee ko ci njabootu boppam ka ca jëkk nag mooy Cheikh Mamadou Moustapha ndax mooy ab taawam bi nga xam ne moo ko fi jëkk wuutu ci xilaafam ba suñu borom dogalee natt bu am ba mu indi ko Touba mu tàmbali nag di dox bëgg-bëgg Seexul Xadim ba ci jëkk mooy jumaa ji jumaa ji gannaaw ba nga xam ne Seexul Xadim joxe woon na ci ndigal ci nekkam ñu jox tàmbali woon ko fële nga xam ne mooy jullikaayu xiit bi ba nattoon fondation bi gasoon ko ba tàmbali ko teg ba tàmbali woon àgg ci ay dee mu jëm fële barabu soxna may ba nekk wuti barabu Seex Saa Jaan bi booba la Seexul Xadim doon laajte ñaar fukki dërëm yi ak juróom-ñett wax ne ku ko ci joxe mooy sa njot ci sawra ku ko ci mënta joxe ka yore sa kilifteef na la ko joxeel loola ba ñu ko dajalee ci taalibe yi fi nekkoon ak seen postéef ba mu toll ci 5 millions ci la sëriñ bi bind ab autorisation bind loo ko sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Mbàkke Buso ba ko bindee ci la sëriñ Tuubaa signé ci suuf ndax signature boobu mooy mandargal ne ci lañ koy war a mën bu tabax waaye ci tënk rek foofu lañ koy gàttal ndax dafa am lu ñu bëgg a jàngale loo xam ne doy na tegtal ci noonu ñu ubbee xam ne dëkk bii mooy dëkk bu wér mooy dëkk bu wóor mooy dëkk bi Sëñ Tuubaa gënoon a soxla ci àddina te jële ko ci ndigalul suñu borom mu jële ko ci ayat alquran ba mu naan allasiina aamanu wa amilu saalihaati tuubaa lahum wa husnu maab keroog bi nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi jànkonteeg yoonu saxaar ngir matériel bi war a transporter Euh, bagage yi nga xam ne mooy ñëw di liggéey si jumaa ji muy xeer yeeg doy yi ñu tegaloon ko ndëgg sërax gi gën a garaaw ne ko faaw mënoo am jumaa ji di tegoo yoonu saxaar personnel bi tolloon ci junni nit ak juróomi téeméer seenu dund tolloon ci bis bu ne ñeent ñeenti bërigo fukki kilo la daan sóor par bis ñu laajoon ko ci kilomètre bu nekk deux cent mille francs mu dix kilomètres yi toll ci cinquante kilomètres yi toll ci dix millions CFA ci jamono jooju bu doon léegi dix milliards la doon Cheikh Mamadou yëkkati ko def ko ci jumaa ji ak dépasse nga xam ne doon na ko ci dépasse bokkut ak nag la nga xam ne moom la doon fay ñi nga xam ne ñoo doon liggéey yoonu saxaar ñu ngi ko liggéey ci diirub ñaari at ba ñaari at yi jeexee tolloog euh, le 9 février le 14 février 1931 ci la yoonu saxaar gi agsi ñu inauguré ko ci 19 mars 1931 gannaaw ba nga xamee ne gouverneur Sénégal joxe na ndigal ba na jógee fële ca biir. Euh, Dakar ak ñamuy àndal ak fa saxaar gi di jaar ak chef de canton yi mu évité woon yëpp ba nu ñëw da ko wawaat nag fële ca nga xam ne mooy euh, euh, fële di gouvernance kanamu gouvernance bi nga xam ne moo nekk fële ci Njaaréem pour war koo décorer takkal ko raaya bi nga xam ne moom la ñu wax croix de Chine d'honneur bañ ko takkalee ba noppi ba mag ñi wër ko di ko kañ ak a takk foofee nag la ko tubaab yi waxaat ne ko nag jumaa ji toll ni ji tax ngay sonn ci yoonu saxaar bañ lay takkal ak fondation bu gudd gi ak yaatuwaay gi ak talaay gi desu ko def ci suuf soo moomu loolu lañ ko wax sëñ Modou Moustapha daal di wax góor gi ma Masula bi nga xam ne moo doon yëngatu ci wàllu administration ñu yónni ko France mu dem toppatoo ko ban jaay ko ci 4 kilomètres euh, carré ci cinq million 5 millions lañ ko ci laajaat ndax dañ ne ko soo ko titre foncier wul bis dana ñëw keneen dana fi dana la fi wuutu wala mu wuutu ñu fi ñoo xam ne si dana ko ñëw bu ko neexee ñëw tëj te kenn du la dédommage sëñ farluwaat moo yónni góor gi mu solo mu dem France bi mu demee mu toppatoo ko ban jaay ko ko ci 4 kilomètres carré ci 5 millions francs CFA yu bokkut ak 10 millions yi nga xam ne defoon na ko ci yoonu saxaar bi bokkut ak dépasse yi nga xam ne doon na ko dépasse yi doon dundal ñi nga xam ne mooy personnel bi doon liggéey yoonu saxaar bi. titre foncier boobee moo tax Touba moom boppam moom gi Touba moom boppam nag ba tax kenn sañu tu fee def lu mu yëgul wala xalifa Sëñ Touba bu fi bi mu am tey benn gouvernement bu ci ma a am baat amul ci àddina ñu am fu war a jàngale foofu nag ci benn taalibe Seexul Xadim mu ci liggéey lu am solo te suñu borom defoon ko président de la république muy maître Abdoulaye Wade titre foncier boobee bi ñu suñu bopp ci année 60 ba nii nga xamee ni la Abdoulaye Wade jële pouvoir bi ci l'an 2000 ñaari président ñoo fi jofe jaar muy président Senghor ak président Abdou Diouf régime boobu def na fi 40 jamononte nañ fekk doomi seexul xadim duñ ne nag liggéeyuñ ci Touba am na pàcc buñ fi liggéey ak ñañ jamononteel waaye li gënoon na ñor du mu Moustapha moom dindi 5 millions ci jamono joojee muy titre foncier yi Touba Serigne Saliou mosoon na ko sàkk ci jamono yi Abdou Diouf waaye suñu borom dogalu ko waaye bi nga xamee ne taalibe bi Cheikhul Khadim dikk na toog la daal di yokk titre foncier boobu ba Touba àgg ci dimension boo xamante ne si àggu fi woon ci jamono jooje nga xam ca la suñu borom dogalit mu jëmmalaatal Seexul Xadim barab bu yaatu fële ca guy Masaalikul Jinaan barab boobu ay milliards moo cay dem ba gis nañ ne jumaa jooju bu noppee gannaaw jumaay Tuubaa ñu gis jumaa ji ko fi romb waaye Seexul Xadim defu ko fi ngir farparloo defu ko fi ngir wane ne dama ëpp dolli ñi da koo def ngir lislaam Ablaye Wade da koo def ngir lislaam waaye di ko ngir ne ci tariix murid laa bokk ndax ci jullit yépp la daan liggéeyal ba nu ci loolu gis ngeen wàllu tëli li nga xam ne financé na ko ci nekk Cheikh Saliou tey gis na Sénégal développement bi fi gën a rëy daanaka mooy mbay te mbay mi gis nañ ne euh, li koy def motatul 30 pour cent ñi ci des ñëpp ñu ngi ci taax yi genn wàll gi ñu di bitim réew waaye Pastef murid yi ak seen farlu tax na daayira yi nga xam ne ñu ngi koy sos ci biir réew mi te Serigne Cheikh Bakhy Ahmadou Gaynde Fatma sosal ko mu ñu dem ba mu law tey ba ñu jëmmal ci Serigne Touba ay daayira daayira loole mën naa ne recette bañ cay dajale moo bokk ak li nga xam ne xalifab Seexul Xadim dana ko liggéeyal Sëriñ Touba ñu man cee defaraat taal Touba loolu gis nañ ne Ablaye Wade defet na ci jéego am solo ndax keroog ba nga xamee ne Sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba tubaab yi wax nañ ne nañu ko jëlewaat fële ca Thièyène Jolof gannaaw bi mu demee ci ñaari liggéey yu mag yi ba pare mu ni Gabon mu dellusi ñu yóbbuwaat ko gànnaar ba mu dellusiwaat gànnaar yooyu yëpp sànq ku lañ bëggoon di ko soreel Sénégal ngir taalibe yi bañ a màbbu dem di ko fekk gis nañ barab yi ñu ko doon yóbbu ci biir Sénégal waaye fu ñu ko yóbbu rek dafay mel ne ke taalibe yi keroog lañ gën a xatama pour seeti Serigne Touba ba yóbbu gànnaar bi bokk na ci bi nga xamee ne moo ko yóbbuwaat bi mu dir siwaatee ci liggéey gamoo bi ba nekkaat fii ci dëru minam gi nga xamante ne si fi la nekkoon dëru mal na foofu gis nañ ne taalibe yi ñu ngi ko fi doon fekk ba gàmmo gi ko fi jëkk a fekk liggéey na ci liggéey boo xamee ne amul am na solo booba ñu doon doon coloniser réew mi booba nag gis nañ ne tubaab yi tiital nañ ndax mbooloo rek lan ragal ba tax ñu xalaataat xalaat bi ko jël yóbbu ko gànnaar kon buñ gisee ne président boobu toogaan fi foofee ñu ko indi woon ci Njaaréem nga xam ne mooy école yi gën a mag dendoon ak kër gouverneur kër gouverneur boo ma yóbbu woon sëñ tubaab bi ñu ko jëlee Thiel Jolof ngir wane ne que dëkki taax yi bu ci nekkee def nañ fi marché def fi ay place fowukaay yoo xam ne leer gi nekk ci taalibe bi gi muy def ci taalibe yi ak njaboot gi dinañ ko mën a dindi ndax ay bu ñu ko bàyyee mu nekk ci àll ba di fa liggéey ak di fa sanc ay dëkk di fa tarbiya gis nañ ne leer gi nga xam ne mi ngi koy def ci taalibe yi ba lépp luy loolee bu ci taalibe yi dawee jëm du leen lool muy leer gi nga xam ne bu ñuy jàng xasida wala ñuy nettali Seexul Xadim ñuy daanu ay jël di naan ndox mu tàng di yéeg ci garab di daanu ak di dañ ay tabax ak di taxaw ci sawara gis nañ ne loolu mënu leen a lool ñu dana def ci ñoom leer boo xam ne si dañuy naaw ci kaw jaww ji ne ay janaw loolu benn pape bi nga xam ne moo fi nekkoon Rome ci ay jamono jooje 1912 moo xalaatoon xalaat boobu ne bu kenn xalaatati di ko jéema a sonal ci jëmmi boppam ji bu kenn xalaatati di ko jéem a teg lenn ci boppam ji ndax faat na ndax fi ñu war a jaar ak moom jaar na kon nag nañ ko teg ñoom ci teel bi génnee leer bi nga xam ne moom lañ def ci ñoom loolu kon ñu ne mënuñu ko def nag ci dëkkub àll mu fay tarbiya ak di fa liggéey kon nañ ko indi njëriñ bu ñu ko fi indee ñuy dugg ci marché yi di dem ci barabu fowukaay yi bu yàggee leer boobu dana daj ñoom xalaat boobu lañ jël waaye sëñ Tuubaa daal leen di wax na leen su ngeen xamoon day ànd bii ngeen ànd ak man di dox ne da ngeen di dem wuti njëriñ ci la atum lasasine bi nga xam ne mooy junni ak ñetti téeméer ak fanweer muy 1330 boobu yi day bu ngeen gisoon secret bi nga xamante ne si moom laa àndal day da ngeen da ngeen teel a teg seen tànk ndax man bu ngeen ma fi xasee dama fiy des di dund ba faw su ñi ma fi indi nag da ngeen di faat te bu ëllëgee li ngeen soxla woon du fi am loolu mën nañ koo firndeel ci kër gu mag gi nga xam ne sanc na ko gannaaw ba nga xamee ne def na fukki weer ak ñett ci résidence bi nga xamante ne si fa lañ ko tegoon ci kër gouverneur ngir bëgg a fay lislaam ngir bëgg a fay yoonu murit foofee bañ ko fa indee fukki weer ak ñett yam fa def bi ñu agsee 2012 ba nga xamee ne suñ borom dogal ne barab boobu am téeméeri am maître Abdoulaye Wade moo ko jëlaat jëmmalal ko Serigne Touba joxaat ko muy addiya joxaat ko addee ba sëñ mu du am Ablaye Fall moo ñëwoon teg si xeer ñu fas yéene faa liggéey barab bu mag boo xam ne nag Seexul Xadim lañ koy jagleel nit nag warut sant ku ko deful dara ndax man lam yaskuru naasa laa yaskuru laa képp ku dul gërëm doomu aadama doo mën a gërëm suñu borom tey comme ab jullit la nekk taalibe bi wane ko ci ba muy amee jafe-jafe ba suñu borom dogal xéewal fekk ko ci ñi nga xam ne jamonontaan ñoom ñu gërëm ko sant ko kon nañu ubbi suñu xel. te leeral bu baax li nga xam ne def na ko ngir buñ koy mën a jàpp ñu jàpp ko ca loola bañ koo jàpp ci puukareb àddina te kenn mënta xool Sénégal ci xar kanam yëpp ba mu daj muy dëkk religieux yi fu mel ne Touba fu mel ne Tivaouane fu mel na yeneen dëkk yi te gisoo fa loo xamante ne si nguur boobu soppi na ko ci bañ moomee suñu bopp ak bi mu jëlee réew mi ba fi nga xamante ne si fi la jeexale muy 2012 kon nag ak teelu bi mu duutu fay ab seere si ko nit ñu baax ñi seere leen duutu fay ñun foofa lañ teg suñu tànk moo tax képp koo xamee nii am nga yëg nga ne tey jii mu ngi doon waaj a ñëw ci biir Sénégal nga dégg ñu koy xañ ak dikkam ngir li ëpp ci nit ñi ak ci gouvernement bi li tax nu bañ ko dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne réalisé na ko ci yoonu mooy te jëli ko ci biir réew mi te sëñ Tuubaa di borom bokk na ci suufu su Ndakaaru see nga xamee ne que nii tey jii tey fa lañ jëmmal jumaa ji am nañu jumaa ñuru leen julli ñuru leen jaamu yàlla ñuru leen la leen ñor mooy jaamu yàlla gi ñu defal ko su néew dañ koy puukarew ngir di ko wute daraja ngir di ko wute xaalis di xëccoo ay imam di xëccoo lépp loolu sëñ Tuubaa ñor ko sëñ Tuubaa moom yaatal diine te siisu ci kenn boddi ko ci kenn moo tax mu doon def liggéey bu rëy boobu moo tax taxit Abdoulaye na ñëw xam ne lii mooy bëggu sëñ Tuubaa mu ñëw darajaal ko suuf su toll noonu tey bari na ci ñu wan Abdoulaye Wade gannaaw wan ko gannaaw te fasatuñ ko yéenee jàkkaarloo moom lu dul rek li lim li mu doon taalibu Seexul Xadiim moo tax ñu wan ko gannaaw waaye nag mu mel ne ñooñee dañoo dem ba wàllu ko ñi nga xamante ne si dañ ne ay taalibe lañ waaye ñi nga xam ne dañoo wax nag ak njaboot lañ te sant Mbàkke tey jëf jëf jooju kenn mënatu koo fay ndax doomu Sëñ Tuubaa ñaan ci muy ki ci mujj muy Seex Saalim Seex Murtada Mbàkke ñaan na ci taxaw ci taxawaay bu rëy may leen liberté jox leen seen gëdd kenn ku nekk mu fekk la ca dayoo ba nga toll mu jox la ci kilifay diire yi nekk ci biir Sénégal bi yépp waaye dafa mel na nag ak ngoree la ëpp ci nit ñi dañ ko ko jënde waaye nag ku yàlla def xéewal nga di ko sàggane ba mu rëcc say loxo bis dana ñëw da nga tegu ci lu méttee méttee méttee loo xam ne nekk nii bu ëllëgee da nga ci yi génn tuddoo ci mën a génn mooy nattu bi daal say Sénégal ba fii ñuy wax ni tey li tax ñu jël initiative bi bëgg a def ci loolu waxtaan dañoo yëg jam-jam bu métti ci muy moom dem na ci bitim ñu jël ñi newoon ci gouvernement bi ñëpp jàpp dugal ci kaso bi te amuñu benn preuve jël doomam ji ñu gënoon a ay journaliste nekk ci bitim réew nekk ay Canada ay journaliste nekk ci biir réew mi kenn ku nekk noonoo ko noonoo Ablaye Wade ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ji tax ngay bind di sos di teg ba kii nga xamante ni si moo fi toog moom tamit mën nañ ne fayul laal ma xorom sax ndax ñun dëgg rek moo ñëw alxaqu min rabbikum dëgg rek moo ñu ndax ba nga xamee ne suñu borom dogal na Ablaye Wade daaneel ko ci anam bu jaaduwul ñëpp a waaye wallu dama ko wallu dugal boppam ci Touba wane na ci waa Touba la bopp tey ngénte sax àgg na ci da ko daan ñëw ci dëkk bi mënta toog ñaari weer du fi ñëw war dëkk bi di liggéey liggéey bu rafet jox ñu confiance ñu jox ko confiance sëñ bu Mbacke sëñ Mbacke Sondlo kenn ku nekk jaar na ci moom ba mu defal ko loo xamee ne ki nii sëñ bi xam na ne sëñ Touba amul morom fu mu mas a yaakaar ak ku mu mas a bëgg mosu fa am soxla bi mu jàkkee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci biir Touba gii la faje si aajo ndax mooy barabu faju aajo waaye nag dafa mel ne loolee dañ koo jël teg ko ci loxoom mu bëgg ko jëndee ak lay xam ne si nag bokkut ak ni nga xam ne moom lañ ko doon jàpp moom bëgg ko xamal ne nekk qulillahumma malikal mulk tuuti mulka man tasha yàlla jox nguur ci ku ko neex waaye nag nguur la ko joxee te sàmmoo ko it bis dana ñëw dana ko jëlee ci say loxo tax na kon kooku yi nga xam ne moom la fi wuutu ci parteem la nekkoon liggéey na ci ci juróom-ñeenti at ak lu bokkut ak ba nga xamee ne jéewagul ci pouvoir la mu ci liggéey fonction bu ne jox na jafe-jafe mënut a ñàkk ci nit xëy na jafe-jafe moom dund foofa moom lay jël di ko fayantoo te fayantoo xam nañ ne amul solo waaye tey jii bis boobu yi nga xam ne kooku bëgg naa dellu si ci réew mi fekk doomam ci biir kaso bi ñu téye ko at journaliste yooyu wër ko takkal ko journaliste yooyu bi nga xamee ne daanoon na dañoo dem ñibbis ñëw ànd ak moom nguur gi ak ñi nga xam ne tekki wuñ dara yàgg nañoo nekk réew mi di xëcc réew mi te réew mi ñëru leen ñoom tey ñoo dem coalition boole seen lépp maanaam di xeex yoonu Seexu Xadim Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaye nag jamono ji nga xam ne jamononte na ci ak kii nga xam ne moo fi nekk di Cheikh Sidi Moukhtar suñu borom daf koo tànn ci jamono ji nga xam ne mat naa tànn ndax bu soxlaal kenn dërëm bëdalul kenn dërëm mi ngi liggéey yoon waa ngi gën a yokk yoon bi gën a dox waaye nag comme moo jabooti ñëpp ñaan na kii fi nekk wax ko ne ko la nga dawal yërmaande yërmaande jooju nag mel na ne boobu ba léegi gisuna ndax jël doomi jàmm tëj ko fukki weer ak ñaar lañ ko doon tuumaal ba tax ñëpp bëggoon koo defu dëmm kenn mënu koo teg bët ba ñu Sénégal yi ko xam ne ñoom ñoo ko doon bëggoon ñu jàpp ko sax tey ñoo mujj bëgg ñu tegg ko ba nga xam ne tey boo xool ñi ko yéene kaso ba tey ji matul 20 pour cent te mooy comme la ma leen waxoon ci dóobi ba rek ñi nga xam ne eh, Serigne Touba ni ko suñ borom def néexu ko ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di ñu doxe leen ca beneen ñooña tey ñoo des ci ñi nga xam ne ñooy bëgg mu des ci kaso waaye suñ borom rek mooy leeral tey nag kookee bu waajuram jógee ci bitim réew ñëw ne day ñëw ci Sénégal tey gis président bu nekk ñëw fi muy président yi gën a sàggan ci àddina muy président France François Hollande ak président Amérique Amérique bi fi président bi daal di ñëw lu toll ci fukki fan ak juróom occupé nañ ko mbedd ci Dakar yi kenn mënatut a dem kenn mënatut a ñëw transport bi taxaw na commerce bi taxaw actualité yëpp activité yëpp nga xam ne nit ki da ci daan jëfandikoo ci peuple Sénégal lépp taxaw na ngir ne dañuy màggal président Amérique bi fi ñëw te jëriñu Sénégal dara ndax ba Sénégal di Sénégal gisoo lenn lu Amérique tabax ci biir Sénégal gisul leen ko. gisu leen lenn lu si ab bitig tabaski bi Sénégal bi ñu dikkee ñu téye leen pendant deux yoo xam ne jël nañ bitig Sénégal yàq ci alal yoo xam ne kenn xamul luñ toll te ñoom ñu fi dara lu dul ñëw di la proposer yoo xam ne loi yooyu l'islam nangu ko yooyee loi noonu dégg nañ réaction bi nga xam ne kii fi toog moom la def loolee dara ko na ci biir l'islam ndax mbirum ñaari borom ñaari tur yooyu ñu mu ñu ko doon proposé def ne pour le moment la wax waxul danañ ko fi dindi définitivement pour le moment nag mooy est yi ñu toll xalaataguñ ci waaye kon jafe ñi jàpp na des na ci ma sa xalaat bi ñu des mooy François Hollande bi nga xam ne dikk na fi nekk président France France ba Sénégal di Sénégal ba fi ne mësul noo amal njariñ ñoom Amérique bokk na ñuy rayaas bi te it dañ noo tane mais ay pauvre lañ comme ñun parce que li ñuy yor ci ay chômage kenn xamul ni mu toll dañuy dem monde arabe di fa wut alal gis nañ